ci Leewtoo wala Lutte TV rek ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag comme ni ñu koy rek bésu bànneex day am bésu naqar day am tey bésu naqar moo am parce suñu papa Doudou Seck ñu xam ko bu baax a baax si Sénégal si culture ak si bëgg réew moom la fi yàlla borom bi jëlee tey ndax loolu yàlla rek a ko sañ ñuy ñaan yàlla yërëm ko te jéggal ko tey nag ñu ngi fii Pikine këram ñii toog nii yaakaar naa mook ñoom samedi ak la bés doxul seen diggante ñu ci yëkkee suñu papa Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi di ko nuyu di ko ñaanal gudd fan ak wér yaram papa di la jaare li ñu bokk di la wax ne loo ñu mën a wax ci suñu du sekk Seck jërëjëf xanaa di wax rek ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Doudou yaay kate ñu ngi koy jaal senegal gépp rawatina askanu ngéwél bala ma wax waa làmb jeeg kenn damay jiital askan wi ndax képp ku baax ci ndakaaru rek ci askan wi du sekk sa mbokk kon moo tax ñu ngi koy jàll Sénégal gépp rawatina euh, Alioune Petit mbay ndax euh, daf ko jàppale woon ci biir ak ci biti euh, di ñaan yàlla rek yal na ko yàlla yërëm te jéggal ko fa mu féete woon ak njabootam yàlla na leen fa yàlla féete mais message bi may lancé mooy doomu aadama bu dee dund nga koy jàppale bu ñu bàyyeeti ba nit dee ñuy sogo jàppale doomu aadama bi doomu aadamaa ngi sooxaale feebar di dem ak moom te mënta dëpp li tax mënta dëpp li ko war te mu war koo def muy depanse say mbër moo xam ne noo ko daane baax na waaye saa yu xëyee talal lay loxo ngeen bëriwaat nañuy jàppale doomu aadama yi nga xam ne tey ay icône la ñu nekk ci réew mi di liggéey réew mi xam nga yow tey fi mu ne mënoo wax lamb mukk te waxoo Doudou mais mënoo wax lamb mukk te waxoo ñoo ko bàyyi loolu yàllaa ko def ñun nag ñu ngi nii di dund lamb defaluñu dara état defaluñu dara kon jaadu na ci nit ki bu dee dund nga jàppale ko ndax ñun lu ñu yóbbu sunu njaboot rek. lu ñu yiire suñu njaboot rek lu ñu yore suñu njaboot rek moom moom la ñuy daw dimanche passé laa mujj a moom laa mujj mooy keroog bi jokkal di bëreek ma Lamine mais maa ko jox mu woy mais dama ne ko mais du lu la dal da nga feebar mu ne ma bañ a to bañ a tëdd rek bañ a tëdd rek mu wóor ma wóor yàlla ne kooku kon li koy xaar moo ko teree tëdd waaye bu fekkoon ne féex na kon day tëdd ah moo tax daal te nit la woon koo xam ne itam bokkoon na ci euh, euh, parce que ki nga solo ndool flottant ba ngeen mën a sol pantalon ba tey ñu naan paay kon kooku yàgg ngeen waaye nit la woon koo xam ne kenn du euh, néewal doole jigéen ci kanamam kenn du néewal doole xale ci kanamam te lu mu yor bokk doomu aadama yi luñ ko waaye masa may ci làmb ji xam nu mu koy def néew yi doole yi la koy jox dina romb nit sax woo ko mu ñëw. mu yëkkati jox ko xam mu ne quoi kii nga jox te xamoo ko nag mu ne xam nga ba xam kii yor na dépense am déet xam ne kon kooku bu yoree ñaari dépense benn dépense bi da koy joxe waaye du ko garde kon ku mel noonu yal na ko yàlla yërëm te jéggal ko di wax rek ne euh, ñu ngi koy jàll kilifa ak mi muy le président de la république parce que du sec dafa bokk ci réew mi di ko jàll artistes yëpp Youssou Ndour Thione Seck Ismaïla Lo euh, euh, Omar Pène artistes yëpp ku lim jëm rawatina artistes yu jigéen ñoom xaar mbay ma jaaga ñoom nday mbay jiin ma jin ma euh, ñoom fa kii nu mu tëddee Soda Mama ñoom ki ne parce que seen càmmiñ moo génn àdduna fu mu leen ma a fekk bu ñu wooyee ci ginnaaw lay taxaw dileen leen aw moo tax Euh, yan euh, euh, ko yàlla yërëm te jégal ko tey jii nag lañ koy denc bu seen kër jotee léegi incha allah ci janaase yi ci yoof bésu sarax si xam naa ne dinañ wax kañ la budul suba di ginnaaw suba rek yal na yal na ko yàlla yërëm te jégal ko. ba yi ñu ngi la ziar si gil ndigal lañ ko bokk dellu ci yàlla rek. Mhm. yàllaa ñu sàkk ci moom lañuy ñuy dellu feebar dee feebarul dee kenn exempté wu ko nag kon liir bi du dee du nag euh, parcours am xam nga nit parcours moo am solo parcours am mm, rafet na ndax seede yëpp benn la man li ma xam ci moom sax bu ma ko doon wax fii ba minuit du jeex parce que li ma seqoon ak moom la. à l'âge de 9 ans fekk na may ànd ak Doudou Seck mu jógee ba Grand Dakar di ñëw Fass ba ni Mbaye Guèye nekk ci succès bi ci la Doudou Seck nag ñibbi see Fass dëkk na sax kër Mbaye Guèye maag moom muy nit ku baax am fulla ci boppam am fayda bëgg njabootam di leen jàppale nekk nag génération bi kuy woy du sekk nga copier mu nekk woykat bu mag waaye nag woy yooyu man dara bettuma ci moom ndax waajuram bu jigéen day kati sekk moo dàq woy du sekk kuy neex baat sama tante ndeykatee la dàqoon baat du sekk nag loolu la doon diggante Gambie ak euh, senegal kenn gënu ko fi muy nit ku baax bëggoon njabootam tabe mën a joxe ñam du sek dañ daan toog man mbiita ñu toog sama néeg fa lañ daan fanaan ngaala ngaala bi cité port mais bu ñu yewoo du sekk ñu jëkk yeewu dem marché dugg li muy dugg ñëw togg añ bi ñu añ pendant des années kon kooku man mënuma def lu dul ñaanal ko tey am naa ci moom yaakaar ñaar na ka am ñaara am xel ak xol xol du sekk rafet na mais xel nag kooku moom day tukki di wayaase man daal je suis am naa daal yàlla moom du ma jël dara lu naqar di ko doxaleeg suma diggante ak moom mais daal du bànneex tey ci man. jërëjëf waaye. te yàlla bu wér a wér. Bour Gueweul bu TV. waaw maa ngi lay ziar bu wér. bàkkaar liñ bokk di ñaan yàlla yërëm ko te jégal ko. allahu moom it yàlla na ko yàlla suñu borom moom yërëm perdu du suñu xarit la woon ndaxte kër gi mu dëkk tey bi mu fiy toxu bokk naa ci ñi ndey bagaasam fii ba ci kër gi yaakaar naa eh, waa këram yëpp mii noonu muy aji chaque jour lu bari dem ci histoire des fois ma daan ko ñëw ci moom di ko mu di mu di ma ci wax keroog jour bi muy tuux fii maa ngi fàttaliku mu jógee mu jógee ci fii Pikine ci kanam ñëw daf ma woo ma wutal ko oto mu ñëw jël bagage yi indi ko ci kër gi mu ñëw fi tuux ñuy partager lu bari ci wàllu xam-xam ci wàllu làmb ci wàllu làmb démb ak histoire Sénégal mu ni ko bëggoon jigéen ci ndaw jigéen joo xamante ni bëgguloon ko toroxal ak ak ndaw yooyu yëpp bëggoon na ci li mu fonk kon yàlla na ko yàlla suñu borom xare àjjana bëgguloon ko jigéen bëgguloon ko toroxal xale bëggoon na tamit togg ay ñam di joxe kon daal dañ koy wax nii fa mu jëm yàlla na ko jëmal fi mu jóge yàlla xare ko àjjana loolu daal moom solo xaadim mi ngi jàkkaarloo nag doomu tur yaay kat yi la xaadim ñu ngi lay wax si gindagaale suñu papa ñi nga xam ne ñun ñoo ko bokk di ñaan yàlla jégal ko te yërëm ko looy wax. waaw sëñ wax sëñ ko ah wax mun ma wax sëñ laay wax. loo koy ñaanal. mu ngi àjjana sama baaba eh, sama baaba àjjana barke wax. dëgg yàlla yan kàddu nga mujjee wecceeg moom. yaay booy ñu ngi lay yaram de. maa ngi ñoo ko bokk. du seet yéen ñii yéen nañ ko war a jaal. barkàlla macha allah ñee làmb ji bu booyee yéen ñëpp a jóg jël ko. yal na jàmm. te yal na ko yàlla xare àjjana yal na ko yàlla fay xolam ci barke Seydina Muhammad bu dee baax rek ak xol bu rafet def na ko wax dëgg yàlla na ko yàlla yërëm te yeexam na suuf sedd ci kaw kawam àllaaxiraam gënal ko àddunaam Birame Mbaye di entraîneur sax mën di manager bokk écurie Fass mu mel ni dañoo gontoo ak naqar muy suñu papa Doudou Seck ñu ko ñaanal yàlla jégal ko te yërëm ko buñ la gisee fii taxawaay bi lu ko waral ak seen diggante. Euh, tey xol yëpp tooy na li ko waral dafa yàgg te muy lu dëggu euh, mën naa wax ne ma duudu moo mag mais daf ma defoon comme kum bokkal ndey ak baay ñu yàgg lool nag Fass jaraloon ko lu ne ci àdduna ba loolu ñu dem ba senegal gépp teg seen bët ku ne xam ko ñu wëlbatiku muy sama mag am fu mu ma teg dama doon tëdd ni ndikku tëdd nii moom mu tëdd nii pendant dix ans sunu kër man sama kër baay ca Faas ñu dem a dem a dem ba suñu borom def xaadim judd ñu ngeen de ko HLM diir depuis boobu ba léegi mën naa xam ne bi xaadim amee treize ans wala quatorze ans la ko jël teg ko ci sama loxo ne may naa la ko bu dundee yaa moom bu dee yaa moom ëpp na vingt cinq ans xaadim ngi sama biir kër kon loolu kon loolu su ma ko grand bi defalee rek bu génnee àdduna sama xol yëpp dina tooy te li tax ma yéex a ñëw ni sama rakk moo nekk Dantec suba ba léegi maa ngi antu diggante hôpital Fann ak Dantec ñu ci tata bi la ma sama doom waxee ne ma papa ma naam lu may gis ci téléphone ni lan la ma ne ko la mun papa am na dimanche passé rek maam moom ñoo taxaw mu sol de bu rafet ñuy waxtaan ba mu naan ana xaadim ma a ko moom ne ma xaadim nu mu mel yow la danga koo reewal ba mu ëpp kon kooku wane na am na fu ma tegoon tey doom dafa foor moo ngi ko jël seen doom te ko son pendant vingt ans vingt deux ans contrôlé ko ci dara ku la jox doomam deseelatu la dara maa ngi koy ñaanal tamit bu dee xool ma yóbbu àjjana rek suñu borom ni ko yóbbu àjjana nit dafa lëndëm doomu aadama moo lëndëm waaye billaay wallaahi li ma xam ci moom suñu borom nu mu ma def dina ko jéggal xol ma rafet na bëgg na Serigne tubaa te képp ku nitu diine fonk na la ñu ngi koy ñaanal bisam bii yàlla na dajeeg yonent bi maa ngi koy ñaan ci yoone Serigne tubaa Mbacke bisam bii di tombé bisu ajum bi guddeem gu njëkk gii yàlla doon gudd gën a leer ci guddi ci kàttanu yàlla sama xol seet na guy jërëjëf tey ñu ngi ci ak suñu dëju Papa Diouf Seck ci armée di Yoff taxaw ak président du Thiel ko yaakaar naa ne moom itam am na lu bëri lu mu wax xam ne ni war nañu ko mën wax tey ci jëm li xam ne bàyyeekoo waaw ñu leen di nuyu muy TV muy euh, Leewtoo di leen nuyu di leen jaale yéen tamit du sekk parce nekk xam nga du sekk mënuñu ko jaale sa moom di ñaan yàlla xare ak du sekk nag ku ñuy manqué la si làmb parce que woyam day defar làmb day bëggal doomu aadama di bëggal amateur du sekk bu demee way Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay xaar yi da nga naan kii day vraiment macha allah bu demee kër maam li moom lay sikkaree nga ne kii fii la bokk bu demee fi nga xam ne mooy Tivaouane bu woyee nga ne fii la bokk bu sekk maanaam symbole la woon rek moo tax président Macky Sall waxoon euh, ministre Mbagnick Ndiaye ministre de la culture ne kii nañ ko defaral kaset ëllëgee mu ñu ko fàtte moo tax it ñu ngi koy jaalee Mbagnick Ndiaye boobu jaalee ministre des parce que bu doon xaalis rek mooy fekk euh, moo tax du sekk bu dee ministre bi amoon jàppale boo xam ne daf na ko di ko jàppale pour rek mu wér moom ñu ko koy jaaree Matar Ba. waaw waaw de ah, di la jaar li ah, ah. bàyyi ko waaw xanaa di leen ko jàggee itam parce que loolu ñun ñëpp ko bokk. monument la ci Sénégal monde culture bi ñu koy jaaree président de la République le ministre de la culture et l'ensemble des Sénégalais. nit ku baax la jullit la. taxaw na Sénégal fu na lu ne Sénégal defaral na làmb lu ne loolu suñu teewaay fii. yéen a mën jàng. mooy. xam ne rek yàlla lañ jógee yàlla la ñuy dem. na hmm. doomu aadama yi delloo si seen xel yéenante jàmm di def jàmm fàttaliku ni bis dina dikk xaw ma midi lay doon xaw ma tàkkusaan lay doon ñu daal lay jël tënk la. jébbal la suñu borom te su boobaa sa jëf rek moo la fay fekk kon na rafet. témoignage waaw na àdduna bi rafet. Euh, ànd bokk ndey bokk baay yéenante jàmm surtout ci li ñu nekk muy làmb euh, xam ni dara wi lii ay moment la rek day jàll. waaw mais nag souvenir yi moo fi des ak fee yi kon damay lancer un appel rek ñu ànd bokk ndey bokk baay lii waral tey ñu taxawu fi. ba ngeen mën a indi seet ay jokkuwaay ñun ñu mën ci wax xam nga loolu famille yu làmb moo ko mën a waral kon acteurs làmb yëpp dañuy war a bokk ndey bokk bàyyi rafetal jëf yi wax yi ak nekkin bi loolu lu am solo la da na ko yàlla def tudd dafa bokk ci man man dama ne la bi ma ko yëgee ba léegi nekkatuma pourquoi parce que bërki démb bi ma jógee ci làmb ji muy làmb fàllu Ndiaye daa ñëw ba ci man sëggal sama bopp nee ma xaaral ma am lu ma la dee ñu toog waxtaan xëy na booba mu may tàggu loolu moo neex yàlla inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waaw nangu dogalu borom bi ñaanal ko ñaanal njabootam may leen xolu ñaan yàlla teg loxo ci njabootam nit ku baax nit koo xam ne lu ne seq nañu fu ñu mës a xewle taxawu nañu xëy na nag ñun lii lañ ko dese loolu mooy bu ci dëkkuwaayu bu mujj yàlla na ko fa yiw jiitu yàlla na ko fa yërmandey borom bi jiitu ku baax la daal. waaw te am nañ ci yaakaar jërëjëf. di président des des amateurs yaakaar naa yow tamit am na témoignage boo mën def ci kii fi bàyyi ko tey ginnaaw bi mu am daal. waaw tey sama xarit la woon. war na waa làmb. waaw ne woon nga fa dem bàyyi ko teel àll yëpp wax nga ko ko déglu si moom parce que bu paree tey boo demee si si làmb dem ci làmb bu mu ñëwee si làmb bi du la ñëwee si parce que

mais jamono ak kii am moo ko rek donc vraiment yàlla def dafa yaakaar ji def soxla léegi mu gën a encore amal yaakaar naa ko donc war na ko ñëpp ci làmb ji ñu seetaan kon ji su nekkoon cent pour cent au moins mooy quarante pour cent la parce que làmb neex na mais làmb bu amul wañ neex na ko xam Mandi Mandé Mami Lo, Jabu Seck la seen émission Faba yi sa Diop ak yow Maada Thiam ñooñu la daan dal gars yu bëri xamul parce que boobu à 1968 boo gañu moom cité Arif boobu tamati li ngeen gis foofu la feeñ donc ñu waa Leewtoo waa Leewtoo TV yëpp aussi jël ay ay xarit rek ñu daje di leen ziar lu bëri di leen jaarale bokk ñu wax ne rek làmb moom dañ benn branche bu bu am njëriñ moo ci fàq làmb garab la mais ay branche bi ci fàq dafa rëy tey muy du ci kanam tuuti ak làmb yi xam dinañ ko sant mu waar rëy rëy mu doon bay ci biir làmb nag mën naa wax ci moom lu bari parce que ànd nañ plusieurs fois foofu voyage nit moom laa ngaa mën a wax laa nga am wax ci moom nga ànd xam ci moom dara nga ànd ak moom baax baax làmb la mooy àddina làmb làmb da ko dommage nag Sénégal balaa ñu laa mën a toppatoo. man non balaa ñëw mën a xam sa valeur nga dëddu ah. amoon na amoon na ay dëdd amoon na ay bés journée yu dul jeex yoo xam ne war nañ ko mën a xam maanaam tey damay je donne je donne le cas de Doudou Ndiaye Doudou Ndiaye Coumba Rose il a fallu mu dem. ñu soog a wax ay waxam ak ay muy dund xam am na lu bëri yoo xam ne war nañ ko mais nag rien n'est trop tard pour bien faire mais en tout cas li am importance mooy yàlla na ko yàlla àtte ci yërmande loolu ni làmb daal moo ñàkk te nag li lu nañ ko sentir waaw nañ ko di ko jaale nag euh, ahlu làmb yëpp ko jaale mbër ko jaale amateur di ko jaale fan ci club di ko jaale ñëpp ñi nga xam ne daal euh, làmb daal moo leen soxal te lamb lañ bëgg mu jëm ci kanam yéen tamit dinañ ko jaare moom la ñu tey yow bokk na ñoo xam ne nii. mun nga dund ak Boucher parce que bu yàgg tudd nañ la Fallou Ndiaye la ñu gis keroog Boucher ñëw ci lamb ñu ngi xëy ba ñëw la ci yomb Kéba bu baax ñu ngi koy jaale waa Amady parce que Boucher waa Amady yëpp. soo xoolee keroog sama làmb ji ma jubluwoon ak sumay tànk am na yaa xamante ni mënuñu ko nettali fii mais fi ma jaaral moom lu ko bëri nekk na nit yoo xamante ni daanañ toog ay guddi lëm di waxtaan nekk nit ku yàlla baaxuloon bu ma doon gis daf maa wax ni ma maa way sa ngénte ndax man suñu famille ay waa HLM te ku xam HLM am waagu ñaay xam secteur Doudou Yaye Dadji maa ngi koy ñaanal yàlla suñu dëgg tey gënal ko ñu jógee tey ban témoignage nga ñu mën waaw nekkoon na nit ku amoon fulla bañam ko xoyam. Doudou Seck ku ko xam rek xam ne si li mu doon def ci àddunaam nit yàpp ko bopp moo taxoon ñu doon wax ne dafa bëri bëri woon histoire mais nekkoon na nitu tamitam ku xam culture ku am fu mu jaar ndax doo tudd benn nit ñaar. te waxu la xam na ko wala waxu la fi mu jaar kon donc dañuy wax rek ne daanaan dëgg tey moom moo wàññeeku te. waaw man li ma gën a marqué si moom mooy way way way bi muy woy làmb maanaam su événement jotee ba mbëri dugg ci biir géew ba desul bu dul bëree bu jaaykat yi yëkkati day sentir émotion bi sentir vraiment yaa ngi si biir li ma gën a marqué si moom nag dañoo daje woon temps yële ñuy foo ak suma xarit boobu ñuy wax àll bi ñu béykat ñoom ñaar ñuy foo woon te di dàqante di kafante ak sama beneen xarit Sam Sabaay donc nekk na ay image yoo xamante ni moo ngi sama biir bopp ba tey. te keroog làmb ji aussi bi ñu mujjee wax moo ngeen am ma bindal ma sa numéro ma chaque jour ma bindal la ko chaque jour nga réeral ko. daal nekk na la nga lu ma lu ma ñaanal yàlla yàlla xaare ko ak daal te jéggal ko ay bàkkaar. benn affinité bu amoon kaf bi des fois lu maanaam seen diggante tey loo mën a wax ci ki tëdd nii. da daan woyee mbapat man maay toog ci wetam. bu nu joxee xaalis man la koy jox. dafa nekkoon sama mag. fanaan na nu néeg. bi nu nekkee xale. fanaan na nu ci néeg bu dul benn du ñaar. danoo dëkkoon. et puis maamam sama jabaru maam la woon Rabi Mbaye mooy maamam Aline Fall Bassa mooy sama maam. yaa ngi dégg mu doonoon xale. et puis a dugg ci way bi mu amee 14 ans la commencé woy di woy ci kasa gi di ànd ak Dembo Aliou Gissé Alaaji Sow ñoom Pape Diop Grand ba noonu la demee ba gis ay Mungone Ndiaye ñoom Ndiaga Mbaye ñoom Pape si Diop njaay Samba Mbuub ànd ak ñoom tamit di woy doon xale. concours woy bi fi njëkk am concours Arigoni la tuddoon. Arigoni waaw Tour Seck moo ko gagné. te boobu ndaanaan yu mag yëpp yëpp yëpp ñu ngi woon foofu. ndaanaan yu mag yu bëri ña ngi woon ci concours Arigoni mais teewul du Seck boobu à l'âge de du nu ma amee 16 ans gagné na ko mu gagné concours bi. doonoon koo xam ni tamit vraiment bu dee woy rek ku ko dàq woy amul yàlla nag mooy dogal ci doomu aadama ak na mu war a mel ah ñun li ñuy def rek mooy ñaanal ko yàlla xare ko àjjana sama xarit la woon sama mag la woon yebante woon nanu man lu ko lu ma neex laa ko daan wax te da daan nangu waaw et puis dafa doonoon woykat ba pare mais mbër la woon tamit duudu da daan ànd ak waa écurie Fass dem mbapat bu ñu leen daanee mooy bàyyi woy ya dem ngeen bu dem daan ña leen daan. moo tuddee Mbaye Gueye satanique. satanique Mbaye satanique. waaw Mbaye Gueye Doudou Seck addunaam yëpp Mbaye Gueye Tigre de Fass la moom Fass Fass waa la dëgg la nag Pikine la mujj dëkk. waaye Fass maan la woon. ci xol bi. ndax Mbaye Gueye moo taxoon. du waa Pikine rek ñoo ñàkk mais waa Grand Dakar surtout. ndaxte fa la juddoo fa la màggee fa la yoroo. ñoom ñoo gën a ñàkk waxuma laa waxuma laa nag ñeneen waa Fass tamit maa ngi leen di jaale jaale mbay gee ñoom Moustapha jaale Pikine nag écurie ya fa nekk yëpp et puis képp koo xam làmb di jaale Makhtar Ba aussi ministre dafa maa woo ni ma dégg naa dëgg bi mais damay tukki damay dem arabe yi mais bu mu ñëwee dinaa fa dem mais ñoom Alioune Sarr ñëpp dinañ ñëw te loolu mu ko waxee noonu laamee ndax ñooñu ñëpp gis nañ leen fi et du làmb rek moo ñàkk nag mais aar ci boppam moo ñàkk woy ndaxte bi muy commencé woy na Star Band moom Pape jibi Ba Doudou Sow Pape Seck nekkoon nañu ci Miami jaar bari nay jaar jaar émission Alaaji Ablaye Naar Samb boobu tu boobu mu tuddee woon njiinum démb ah njiin mu njiin mu bees njiin mu bees Doudou Seck ci la ko invité woon mu ca la woyo woon sama gént gi yéena ma ci àdduna mu xool jaar-jaaram mu woy ko Doudou Seck doonoon na koo xamante ne ni eh, nii rek la yàlla dogaloon mais nag dund na li mu war a dund aussi yàlla tamit moom mooy dogal dund li mu war a dund bi dee jotee dee na. ko ñaanal yàlla xare ko. waaw.